حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله نبينا محمد ومن والاه mbokki jullit yi doomu aadama eh, am na juróom-ñaari cër yu ko sunu borom yàlla jox waaye juróom-ñaari cëram yooyu am na ci benn cër boo xam ne moom rek moom rek la sunu borom yàlla di xool ëllëg yowmal qiyaam itam kuy mucc ku nekk daa fekk sa cër boobee di cër boo xam ne bu set wicc la bu laab la bu amul benn taq-taq yàlla sunu boroom nee na ëllëg yowmal qiyaam seen alal yi seen doom yi du moo leen di jariñ waaye la leen di jariñ mooy ngeen indil yàlla xol boo xam ne xol bu mucc ayib lay doon yowma laa yanfau maalu wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim bokk na ci li jafee mucc lool lool mooy di dox te doo ëmbal benn jullit dara ci sa xol du ak mbañeel waaye itam du genn xeetu ñagg-ñagg goo xam ne danga koy ëmbal sa mbokkum jullit loolu yombut loolu moo tax sax seytaane day faral di jaar ci bunt yu mel noonu di jaxase ay doomi aadama te mën naa am sax ñoom ñëpp ay jullit lañuy doon mën naa am sax ñuy bokk di daje ci jàkka ji waaye xoolante xool bu mat léeg-léeg mu xaw leen a jafe léeg-léeg sax ñu xaw a wanante ginnaaw sunu borom subhaanahu wa taala diine ji nga xam ne moom la nu jox muy lislaam daa fees dell ak loo xam ne day tax sa digganteeg sa mbokkum jullit aw dig du fa jaar borom bi xam gum xam ne doomu aadama dafa am ay yëg-yëg yoo xam ne léeg-léeg mu xaw a naqari tuuti ngir jëflante gu moroomu doomu aadama jëflanteeg moom gis nañ ci suuratu nuur muy wax ne boo amoon yitte wala nga am ay soxla ci doomu aadama ñëw këram fëgg ko mu xamal la ne ah dooma mën a gis tey tee ngaa dellu ba ëllëg wa in qiila lakum urji'u borom bi nee na bu ñu leen waxee dellu leen ba ëllëg borom bi nee na bu leen ca am lu ngeen di nattable daal di leen di dellu farji'u daal ne huwa azka lakum dellu googi day moo gën a set moo gën a laabal seen xol yi loolu borom bi daa mel ne kuy miisal jëmu ji nga xam ne ñëw naak ay yitteem jëmu ji nga xam ne ñëw naak ay soxlaam bëggoon la koo diis mbaa mu am lu mu ca bëggoon a waxtaane yow fekk da ngaa jàpp jamono joojee xam gum xam ne booy wàññeeku sa yëg-yëg mën naa am xaw a naqari tuuti moo tax borom bi ne huwa azka lakum wàññi ko goo ngay wàññeeku di delluwaat te gisoo waa ji borom bi nee na loola huwa azka lakum moo tax salafu saalix seenu bëgg a jëfee alquranul karim taxoon na da nga ci daan gis kuy mébét lool lool ci ak dundam yëglu ñu xamal ko ne ko doo mën a doo mën a gise yëglu ñu xamal ko ne ko doo mën a am ab daje dañ ko daan mébét loolu ndax lu tax ñu ko daan mébét mooy li yàlla ne huwa azka lakum doomu aadama joo xam ne xol bi daa mucc amul lum ci dencal kenn loolu yombut moo tax yàlla boole ko ci xéewali àjjana yi ku ne xam ne ne àjjana bu doon ne sunu borom subhaanahu wa taala daa bàyyi rek ña war a dugg ñépp dugg ah te amut lum dindi ci ñoom ñooñi nga xam ne ñoo dugg ba àggal kon yëg gi nga yëg ne diwang ci barab sàngam rek te sa digganteeg moom neexutoon te mën naa am la teewoon sa digganteeg moom neex sax ci si ci yéen ñaar rek la bàyyi ko yoonu lislaam nekku ca loola day naqaril ak aw nekkiin moo tax borom bi na ne waa àjjana ñoom la ma njëkk a dindi ci ñoom mooy la woon ca seen xol ya ci xeetu mbañeel ci ëmbal kenn lenn wa nazaana ma fi sudurihim min ghil ñu daal di doon ay bokk ixwaana daal di jàkkaarloo ala sururi mutaqabilin kenn ku nekk jekk ci sablal jàkkaarloog sa moroom aljana bu fekkoon ne ni àddina tëdde la kon nit dana la tiim mu metti la lool sa àjjana du neex kon sax danga fa nekkandoog koo xam ne mas na laa def loo xam ne sunu boroom ci coobareem loola moom daal na koy jeexal ba mu jeex takk loola bu ko yàlla dindi wutoon sa diggante kooka sa àjjana du ma sa du ma du ma neex mukk ci àddina saxaaba yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci buntu bi yàlla da leen cee mayoon lu doy waar xol yu mucc lool amu ci kenn koo xam ne yaa ngay ëmbal sa mbokkum jullit lenn abu sufiyaan bi mu duggagut ci lislaam mas naa ñëw ci jataay boo xam ne salmaan alfarisi moo fa nekk ak suhaybu ruumi ak bilaal ñu dajaloo bi ñu ko seenee muy ñëw ñoom ñépp maase wax ne wallahi ma axadat suyufullahi min unuqi aduwillahi ma axadaha noo ngi waat ci yàlla ne jaasi yàlla yi amagut la muy mébat ci doq waaj yi noonu yàlla bii seydna abubakar bi mu déggee wax jooju ndeysaan xam na ne kii mag la te itam xam na ne kii kilifa la ci dëkk bi mu bëgg koo miisal daa di dal ci kaw suhayb dal ci kaw bilaal dal ci kaw salmaan alfarisi ne leen ataquluuna hada li cheikhi li cheikhi quraysh wa sayidihim ndax lu mel nii ngeen di wax ci koo xam ne mooy magum dëkk bi mooy sangum dëkk bi bëgg naa miisal kàddu gi nga xam ne abu sufyaan dégg na ko bi mu ñëwee ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam daal di koy xibaar loolu ne ko tey jii day suhayb tey jii day bilaal tey jii day salmaan toog na abu sufyaan jaar fa ñu wax ci moom kàddu gu mel nii waaye man lii laa leen wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne yaa aba bakar laallaka aghdabtahum mbaadu da nga leen a merloo ñoom ñoo ñi nga tudd mbaadu da ngaa mokk da ngaa merloo sa mbokki jullit yooyu ngir bokkaale katu yàlla boobi abubakar daal di tiit mu daal ne ko ah boo leen merloo day merloo nga yàlla loolu daal bay boo nga xam ko la in kunta aghdabtahum laqad aghdabta rabbak seydina abubakar ca wayaf ga bi mu ñëwee daal ne yaa ixwata a aghdabtukum moo ndax dama leen a merloo ci li ma leen wax léegi nii mbaa amut lenn lu ngeen ma ëmbal ci kàddu gi ma leen wax ñu ne ko laa yaxfirullahu laka ya axi laa maa aghdabtana wala wajadna fi anfusina shay'a yaxfirullahu laka ya axi yàlla nu yàlla sa borom bu ko jégal yàlla xam na ne li nga nu wax day ci waxiin amut lenn lu mu def ci noonu waaye foofu itam da nga fi gis Aboubacar wayef gi mu wayef wayef gi mu wayef ba ñëw di wax ak ñoo xam ne mën naa am sax moom wax dëgg yàlla tolluwaayam du ma wax sax ñoom waaye xeetu xeetu sallallahu alayhi wasallam yépp moo leen gën waaye gis nga nam ñëwee di leen dànkaa foo ko laaj mbaa merloowuma leen ngir rek bañ mbokkum jullitam ëmbal ko dara kenn ngi nii ku ñuy wax Abdullah ibn Abbas daf daan wax ne man day fekk daa am ku ko ŋàññi tiim ko ŋàññi ko wax ko ba xolom sedd mu daan ne ko ah yow de yaa ngi may ŋàññi waaye man de maa ngi ñetti jikko yoo xam ne maa ngi koy sant yàlla man day léeg-léeg may jàng alxuraan ba agsi jenn laa yàlla may ma ci dégg goo xam ne wallahi damay mébét jamono jooju ma yaa amee dégg googu jullit yàlla yépp amoon dégg gu mel noonu gama yàlla sa borom defal xam ngeen ne bu leen fàtte ne salaatu la moo ko ñaanal yàlla may ko ak dégg ci alxuraan mu ne musumaa jàng jenn laaya yàlla may ma ci ak dégg lu may nga xam ne jamono jooju ma ci ameeg dégg maa ngi doon mébét jullit ñëpp am ci dégg musumaa toog benn bis dégg ñu ne dëkk sàngam maanaa sébbulu nañ maanaa taw ba wàcc na fa lu may nga xam ne doon naa mébét jullit ñépp seeni dëkk mel noonee man de danaa toog ba yàgg ma dégg ab àttekat bu maanu ci dëkk ma be ma mébét bu baax a baax a baax di bég ca àtte boobee muy àtte te mën naa am sax sama giiru dund mën naa am du ma àtte mën naa am sax du àtte kenn ci sama ñoñ loolu lu muy tekki ak lan lay tegtale mooy xol bu set xol boo xam ne bu laab la abu daja abu dujaana bi muy waaj a génn àddina ndeysaan xar kanam bi tàmbalee leer mu daan ne man day xam naa ne say jëf xaw naa doy waar lool waaye am naa ñaar yoo xam ne moom maa ngi ciy am yaakaar lool ba ca jiitu mooy man mosuma dugg ci loo xam ne saa yoon nekku ci kuntu laa atakallamu fi ma laa yaani waaye beneen bi itam fa kaana qalbi lil muslimina salima man mosuma ëmbal benn jullit dara loolu yombut yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na bis boo xam ne dane mbedd mii day dana am ku ne fi tëlle koo xam ne nituk àjjana la am jenn waaye joo xam ne ba mu génnee boo ko xoolee sax du la nuru nit ku am solo lool mi ngi njàpp mu yes peq te ëllëg sama waxaat ko waaj a génnaat te ëllëg sama waxaat ko waaj a génnaat saxaaba yi seenu xër ci lu baax tax kenn ci ñoom daal di ñëw ba ci moom ne ko man de damaa am lu am sama digganteeg samay kër ma bëggoon a dëkk ak yow ab diir fekk daa bëgg a xam ba xam kii ndax daa am mbakkar fegu yu muy def daa am jaamu yàlla xeetu jaamu yàlla yu muy def yoo xam ne si mën naa am yàlla ca loola la ko dugale aljana nee na am naa fa ñetti fan yoo xam ne waa ji xiyaamul layli sax du ko def maanaam li ñuy wax taxaw guddi sax du ko def gis naa ko daal guddi gi bu nelawee ba yeewu da nga gis mu tudd yàlla waaye nag bu fajar jotee moom dana yeewu dem julli jàkka ja ñetteelu fan ba ba mu matee ma ne ko waaw amul lenn lenn looy jaamoo sa borom di ko làq lu ma lu may ni ma gisee nii rek mu ne ko ah wallaahu man de ni ma gisee nii rek noonu lay dundee mu ne amul lenn lenn lenn loo làq mu ne ko déedéet te ki ku koy laaj kat ci saxaaba yi ñi ci gën a mën a taxaw guddi ci la bokk ñi ci gën a mën a jàng alxuraan ci la bokk ci ñi gën a mën a woor ci saxaaba yi ci la bokk mu ne ko sallaahu ni nga ma gis rek lay dunde ah waaye xanaa leen leen de moom maa ngi koy seetlu ci sa bopp mooy mosuma tëdd mukk mukk mukk fekk sa xol bi ëmbal naa ci benn jullit dara dara dara dara mu daan ne ko yow kay lii ki ci nga ñu rawee léegi-léegi gis koo xam ne mën naa woor lool mën naa julli guddi lool mën naa saraxe lool waaye xol bi nekk xol bu mucc boo xam du ci dencal kenn dara loolu loolu yombut loolu lu jafe-jafe la te diggante jullit bu nekk ak mbokkum jullitam lu mel noonu moo foo doon jaar moo tax ndeysaan ibnu qayim rahimahullahu taala daana wax ne man de sama sëriñ boobu yi ñuy wax ibnu tayim rahimahullahu taala daanaa dégg am ci dongaam yi ku naan man de su ma sañoon ni ibnu tayim yee mel ak noonam yi noonu laay mel ak saay àndandoo waxuma ne noonu laay mel ak saay noonu de waaye noonu laay mel ak saay àndandoo daane mosumaa gis mu ñaanal yàlla mu ñaan yàlla benn noonam waxtu wu nekk da leen di ñaanal njéggal suñu borom subhaanahu wa taala nee na benn bis ibnu qayim nee na benn bis dama ñëw di ko bégal ci noonam bi gënoon a rëy bu génn àddina ba ma ko ca bégalee dafa daal di mer daal di may gëdd daal ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun daal di jug fa saasa dem ci kër koo ki nga xam ne moo doonoon ab noonam daal di leen di dëfal ba noppi daal ne leen man day fi leen seen waa ji féete woon danaa leen fa féete insha allahu taala lépp lu ngeen aajowoo ci indi mbal rek naa ko daal di yëg fa saasa mel ne ma diggantee ma kook ak noonu mosu faa jaar loolu defut lu yomb nekkut lu yomb ñu bëree bëri sa diggante ak ñoom léeg-léeg lu tuutee fay jaar rek daanaka ay nangami at ay nangami at da ngeen di romante rek waaye kenn du tudd sa morom te loolu warta am ci diggante ay julli rawat na ñoo xam ne su julli jotee ñu daje ci jàkka ja julli juróomi ca jàkka ja la ñuy daje julli ajuma yi ci jàkka ja la ñuy daje léeg-léeg it am tabaski wala kori ñu daje ci jàkka ja ba noppi su kenn ku ne sa diggante ak sa morom am lu fay lu fay nox-noxee mbokk jullit yi bokk na ci li nga xam ne day dimbale doomu aadama ba yii may wax du am ba ca jiitu mooy ixlaas mooy sellal ci say wax sellal ci say jëf nit koo xam ne lépp lu muy jëf yàlla dong tax mu koy def nga xam ne du ca sóoraale mbindeef kooku li ci gën a bari yàlla dana ko dimbali ci tomb bi ñuy waxtaane mooy xol bu mucc ñaareel ba itam mooy baral di ñaan nit day war di ñaan yàlla dimbale ko ba ab xolam du ci dencal benn jullit dara wala tajal fi qulubina ghilla lilladina amanu rabbana innaka raufur rahim waaye bokk na ci itam jikko yi nga xam ne islaam da koo santaane te muy neexal sa digganteeg doomu aadama ci ànd ba koo gis rek ndax gën a xa na gën a teel a gis ci yow ak muuñ jàkkaarloog sa mbokkum jullit sax daal di muuñ fa saasa te nuyoogu leen de waaye daan ngay muuñ fa saasa xoolal njàngale mi islaam nee na muñ googu ngay muuñ ab sarax lañ koy binde tabassumuka fi waji axika sadaqa waaye mbokkum jullit moo xam sa diggante mu sax dafa dafa mel ne daal tey jii daal taxulaa jubu demal fekk ko fa mu nekk nga nuyu ko bu fekkee da nga ko fekk ci mbooloo sax xawulaa jubu tuuti woo ko téléphone ko ah man de tey ji dama laa gis nga mel noo xam ne mbaadu de dara mbaadu da ngaa xaw a tawat te doomu aadama li koy gaar daa xaw a day waar man nga koo fekk sax jamono joxoon dafa am lu xibaar buñ ko jox mu xaw a jaaxle wala mu am lu koy metti mu xaw a jaaxle ba it jam la joxoon sax démb joxulu ko tey ji subaa bu la yàlla dimbaloo da nga yaakaar ne kooku kat moom daf maa bañ tey ji waaye nangam a nangam déedéet fexee la dabaatal lool loolu du ak ñàkk fu la loolu ak mbaax la ci ci ak mbaax la bokk waaye bokk na ci itam lépp loo xam ne day naxal ak cofeel sa digganteeg sa mbokkum jullit nga fexe ba loola dañ ba ba set wicc boo ko mënee dox nga dox ko boo ko mënee wax nga wax ko bu doon ne doomu aadama sax dangaa yëg ne kii daf laa noonu doomu aadama ji daf lay xeex fexel suba ngoon yàlla lim la sant ci moom mooy nga xool la gën a rafet nga di ko def idfa billati hi ahsan fa ida alladi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun xamim yombul nag wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa du xadin azim lu jafe jafe jafe la nga yëg ne kii dalaa noonu nga yëg ne kii dalay fexeel dalay atañàkkal ba noppi téewul nga ëmbal ko lu baax loolu yombut borom bi ne ne ku muñ ku mën a muñ dëgg moo ko man borom cër bu rëy fa yàlla rek ko man xoolal yàlla ni muy jëflanteeg jaam ñi bu bët sebbee ndox mi buy wàcc yàlla du wax ne ñii kat saay noonu lañ kon du ma fa taw déedéet borom bi day maasale ñëpp ci buntu arrahman ñëpp lay maasale waaye ñëpp lay maasale dundal te maanaam ñi ñi ëpp ci ñi muy dundal duñ ko topp duñ ko jaamu duñ ko tudd sax far benn yoon waaye noonu lay jëflanteeg ñoom doomu aadama yi yàlla dafa dogal seen diggante seytaane dafay gaaw a dugg léeg-léeg sax ak kàddu nga wax ko rek kàddu googu seytaane jaar ci moo tax yàlla naan dee leen woddu kàddu yi dee leen woddu kàddu yi waqul li ibaadi waxal ma sama jaam ñi yaqulu lati ahsan saa yu ñu wax nañ xool la gën a rafet rafet am na am lu gën a rafet kàddu gi bu fekkee ne boo ko waxee nii am na geneen anam goo xam ne boo ko ko waxee woon ñépp seen xol day mucc xoolal anam googu nga waxee ko noonee alxuraan tekki ne inna shaytaana yanzaxu baynahum léeg-léeg nga wax kàddu goo xam ne si ñàkk gi ko ñàkk a wodd ak ñagasal gi nga ko ñagasal ak taral gi nga ko taral tax na am ko ca gis boppam koo xam ne seytaan da cee daal di jaare ne ah moom de gis nga ko laa la waxoon nañu nii de sallahu de yaa ngi ko jàppee waaye gis nga ni mu waxee tey jii gis nga ni mu waxee te ci surtout mbirum kàddu surtout mbirum kàddu kàddu li ci seytaane di jaare di yàq kenn xamu nu mu toll yàlla noonu yàlla dimbale ba suñu xol yi mucc yàlla bu nu ëmbal benn julit ak mbañeel yàlla na suñu borom yàlla dimbalee ba benn jullit duñ ko ëmbal ak mbañeel maa ak iñaan yàlla na yàlla dimbale ñu bokk ci ñi nga xam ne bu ñuy wuy ji yàlla seen xol yi day mucc ba duñ ëmbal kenn dara loolu yombul waaye yomb na yàlla yàlla na ko yàlla defal wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin